asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waa daara ji ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu xaq bu baax tabaarakallahu te di leen ko baal ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu doon la ñu sëmbatal ci géeju yërmandeem ñu doon la ñu yërmalaan suturaam yi ñëw nañu yéen sunu ñeenteel bi jataay ci sunu feri daara feri ijji macha allah ki mooy xarfu taa muy euh, ta ti tu at tan tin dun da di du daun mai harf bi da di du at dan din tun da di du assalamualaikum warahmatullah